tey man maa organisé euh, combat kickboxing bi entre Paulis ak euh, Ouzin organisé ko pour euh, Ndiku ak Fatou ñoom nag dañoo nekk ñoo xam ne yàgg nañ ma xamé ñoom li la leen mëna défal euh ma waxoon né né aussi dañu nek ci période bo xamné nit ci dañoo stressé te ñoom dañu bégal gaay yi ndax da ci dafa bok ci affaire u sénégalais rétane comique donc voilà ma organiser ko laaj sama frère euh, Griff, mu accompagner ma ci sama sœur Zainab euh Abindour bima ko wowe aussi wax ko ne dama def signature de contrat wu ci euh, euh, Paulish at cousin mu ne ma avec plaisir accès bi mu may gratuitement Je remercier madame Lay. merci beaucoup Abindour. donc voilà gars vous jërëjëf. Abi ñëw ci projet bi ci projet bi. Euh, projet bi nag euh, dama jàpp ne rek euh, nit boo yàggee ak moom da nga koy dimbali chaque jour may la jën jëndal la gaal won la nu ñu nappee moo ko gën dama yàgg di génne di leen jox ma ne pourquoi pas bi pas ma tëggal leen combat sponsor yi espéré maa leen ci woo ñu wuyu si bu ko defee Pawlish xam ngeen ne ne yàggul dara papa ay seex la yor yor na terrain am na koo mun a tabax yëkkati këram kii ak tamit am na terrain ci lu ma leer war na koo mun a tabax am këram lu waaye wàcc ko dimbali famille wam ñu nekk ay nit yoo xam ne dañoo am jom dimbali seen bopp et au delà di dimbali seen bopp ñu ngi dimbali seen i njaboot kii ku ko xam-xam ne ne ñetti responsabilité la am yaayam bi nekk mbuur maamam ak moom jabaram ak ñaari doomam kii tamit pareil famille wam da leen di taxawu di taxawu boppam kii noonu kii noonu ma ne union fait la force nit nag di nga toll foo xam ne ne nii il faut nga exploiter li nga xam ne loolu la la yàlla may comme ñoom nag reetaan loo nit yi la leen yàlla may te nit yi bëgg nañ leen pourquoi pas ñu defal leen loo xam ne après dañ ci gis seen bopp mun a accomplir seen i seen i seen i seen i seen i seen i rêve ndax ci nekk ci ñun rek gëm naa ni am nga ay waaye am nga ay rêve aussi. Uh-huh. Uh, ñaari combat la. Pawlish ak na yeneen surprise yoo xam ne bëgguma ko wax. ok mais ñoom ñoo gën a fësagul waaw ñoom ñoo gën a fës mais am na yeneen. ok pourquoi le choix de Ndiku ak Lotu. Ndiku dama ko yàgg seetaan mu di ma reetaan loo aussi ma bëgg kase ben image bu nit am ci ndiku japp nañ né xawma nuñ koy wowe sax euh, gangs la mais ndiku elle est remplie de sensibilité hein et des fois ñun buñu véhiculer au fond du lolu mo nekk ci ñun ki dafa yërmande kessé lal xol bi té nit ku bax la ma bëgg à travers li may organiser aussi mu wone beneen facette am euh, bu bokut ak li sénégalais yi yaakaar ak fokk ci mom set bi date bi nak euh, dama koy baye ba après. wa lepp dañ ciy defagum ko. Euh, euh, alors ki gagné ci gor yi. combat bu mag parce que ñom ñaar la ñoom ñooy combat bu mag bi di nga am 3 millions. ki ñàkk combat bi 1 million 500. ci jigen yi 1 million ki ñàkk am 500000 ak sponsor yi nga xamné ni ne ma ciy gunge té vraiment préfère rester dans l'ombre voilà. waaw.

te coach la am vraiment ko xamné expérimenté diko jangal euh mo ngi ci et Pawlish mom bima ko laccé daf ma ne dama ci dem ba djé ki mom waxatuma ko keneen ki ci top euh, lim ma wax daf ma rétan lo sax daf ma ne ndikku dafa yàgg a yóbbu fitu xalé yi jigéen yi dinaa ko wonné né nak amna benen jambar bu melni mom bu nek ci dëkk bi muy faa voilà depuis sànq mi ngi lay dégg euh, nga wax ni da nga leen bëgg a jàppale pour ñu tam seen terrain la leen yërëm ak li mel est-ce que au fond lolou mais bu nekkul loolu lan leneen lay nekk man damay liggéey mais ci kaw may liggéey euh, du ma bëgg a heurté parce que la ma sékk ak ñoom ñoom laa ko sékkal waaye nag dama am famille am ay njaboot te baax naa lool waaye mënuma dëkk ci di leen jox lu dëgg waaye war naa leen mën a ubbil ouverture port boo xam ne ne mën nañ cee gis seen bopp ndax leer na ma leer yàlla ni ñiy seetaan lii tey dina am ñi nga xam ne dinañ ci porté wu volontaire taxawu leen jàppale leen ndax xam nga ne ku ma xam man xam ne ne yor naa kër yor naa suuf yor naa terrain mais ñoom ay terrain rek la ñu yor mënaguñu yëkkati brique te bëgg naa ñu yëkkati brique parce que samay nit lañ. waaw loolu xam nga bu doon damay commerce si ñoom de dina demee neneen nu dul nii mais loo xam ne sur contrat laa ko def loo xam ne ne damay jël griffe juuf jiital ko ci ne ko damay yàgg ànd ak yow euh, Touba ci benn maire ñu récolté xaalis bi mu jaar sa loxo nga doxalee ko comme ni nga ko war a doxalee man bëgguma dara jaar ci sama loxo griffe lépp luy trésorerie ak lépp loo xam ne ne ni gérance la griffe moo koy gérer du man parce que weex naa dunk euh, mais li waru leen jaaxal et dama jàpp ne question bu malsaine la parce que ñoom ku ci nekk tey boo jëlee kaddu wax fa ma jaar ak yow man maa leen di wax la ma sékkat ñoom ñu noppi bañ ko wax mais nag vu que vous me poussez à parler tay japp na ne buma yëkëté ben 300 mètres carré jox ko paulis war naa koo mun a nan la yëkëté terrain bi mu jóg lu waayee yaayam surtout wacc ko ndax ni ngeen koy gisee ni dafa jël yaam def ko ci tek ko ci mbour kër di fay loyer boobu wara fay loyer bi mu dëkk ak ja eh, ak jabaram ak ay domam yoy ay charge yu bëri la n'est-ce pas. alors Awa euh, euh, ngi lay fay. bu dafa màcc wàll jëm ci wàllu woowu noonu ngir tuuf nga wax moo une expérience, ginnaaw est ce que euh, jël nga ñoo xam seen xam-xam màcc na ci kickboxing ngir ñu nekk sa ginnaaw bien sûr parce que avant ngay def benn programme il faut que nga consulter ñi nga xam il am nañ ci expérience il nañ a def nga laaj leen seen xalaat aussi laajte leen li ñu bëgg exactement daanaka man sax boo leen bëggee dëgg-dëgg idée bi am naa ko parce que c'est est normal nit kuy xalaat la mais ki tax ma gën ko dëggal mooy ñaar ñi ñoom ñoo ma sonn ñoom ñoo ma sonal topp ci samay nopp ñun tamit bëgg nañ lii bëgg nañ lii bëgg nañ laa bëgg nañ laa jàppale ñu yaa ñu war a jàppale yow la am donc bu dee lii su ma ko defee ñoom dinañ ci gis seen bopp ba jàppale seen bopp dama koy def quitte à ce que nag ma dégg ci lu nekk ndax yàgg naa dégg ci ñoom lu nekk ah ñoom dañu sol sama yére am nañ ko ci man kii bu ñëwee sama kër day yéeg sama kaw lal am na ko ci man dama ko bëgg trop donc c'est très normal tay ma ma taxawu len defal len lii bëggal ci jaaraale ci bëggal ci Sénégalais yi dañoo stressé wu ah le pays va très mal ah nañ ko nangu ça va très mal avec le nouveau gouvernement changement de régime bi le temps que les choses s'activent ah dañu xaw solo ñun ñep et pourquoi pas ñu wut ño xamné dañu rétane lo man bima ko waxé medoun mi sama grand la xam nga né ci genre yi du ci ñëw medoun mais bima ko ko waxé mo ngi won ci kaw la lam medoun daaree ba sonu né ma may yow do nit man damay ñëw té bi muy ñëw bu cent franc bu ma laajte waaye ku xam Médoune xam vie yu mu am ci snap buy déplacé wu lu mu bon bon bon xanaa di nga ko ci 500000 jox ko mais zéro franc ndax da cee kontaan Zeyna Bamba pare keneen ak keneen pare yéen ñii tey ngeen nekk ay presse amul kenn kuñ ci déplacé jox la sax paas yéen a ñëwal seen bopp kon idée i neex na leen.

buñ ci gis sama mais je suis obligée de sama société ou sinon société bi mënon mais kenn du buzz. Euh, buzz je dirais pas buzz parce que buzz amul solo ci def am solo donc je ma buzz parce que ni ay nitu bruit lañ ma téléphone ah, au passage ma si remercier Diagana mi nga xamné je

mais mën naa am ñaari question bien sûr alors euh, ñu ngi leen nuyu bu baax Awa di la féliciter ci initiative bi nga jël merci alors première question mooy euh, lan moo la initié à ce que nga xalaat nekk promotrice su kickboxing lan moo la incité nga def ko benn ñaareel bi mooy euh, naka nga def ba ficeler contrat yi parce que gisuma ci benn yoon benn sponsor boo xamante ne nga àndal ci événement bi yaa ngi imaginer wala nga xalaat sponsor yi a démarcher pour mën a mën euh, bu ma ci kenn gungewul sax ma gunge ci sama bopp. Ah, parce que damaa gëm sama bopp du question yor yàllaa yor mais mooy joxe mooy séddale. ah nest man sama yéene rek laa am te yal na ko yàlla suñu borom moo tax. donc voilà mais du ah, du question yor te dama dëkk ci dëkk bi bokk ci dëkk bi yàgga def lu baax ci dëkk bi. nit am programme am woo ma ma déplacé wu gëm naa ne programme